ay jërë ngeen jëf euh, internet yu ñuy déglu à travers euh, partout dans le monde rawatina yéen ñi abonné chaîne de mag bi ñuy wax euh, Galsen People tey nag dañoo ñëw seet si benn kilifa. koo xamante ne mën naa ne euh, kenn dootu ko présenté si mim réew mi ñu koy wax euh, sëriñ Ahmed xalifa euh, Niass borom résultat yi sëriñ Ahmed na tey mën naa ne dafa dugg see xaal xaal gu metti tey nag war na def ay révélation yu doy waar si réew mi am na loo xamante ne mi ngi koy gis mu ñëw xam naa rek dina ko leeral sénégalais si biir émission bi dinañ waxtaan aussi dialogue bi nga xamante ne mi ngi waaja am te président Macky Sall ko dina waxtaan aussi si avenir Ousmane Sonko manifestation yi passé lan mooy njëriñ bi ak lan la mën a jural Ousmane ko xam naa rek balaa ñoo dugg euh, si programme dañ koy daldi bàyyi mu nuyu suñu mbokk internet yu gëstu daan sëñ Ahmed nuyu nañ la. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, mbokki jullit yi mbokki réew mi ak réew mbokki gaal seen people yéen ñëpp fa tabarakallahu kenn ku ci nekk foo mën di nekk. di bàyyi xel site bi di koy topp ci ay émission maa ngi lay nuyu di la ziyaar te di la ñaanal jàmm. di ko sàkku ci yow bismillah. macha allah sëriñ Ahmed Khalifa Niass borom résultat yi kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax a baax xam naa rek dañuy daal di tàmbale programme bi rek ñëw nag suñu première question rek muy wàllum seet mu nekk seet boo xamante ne seet bu am solo muy mu koy def di am ay résultats à travers partout nag parce que ñi ngi jot ay retours yu am solo ku nekk mi ngi ñuy woo naa ñu sëñ Ahmed macha allah lépp loo xamante ne waxoon nañ ko si mbirum seet dañ koy gis xam naa dañ koy bàyyi mu leeral mbokk internet yi si mbirum seet sëñ bi lan mooy secret bi waaw mbokki jullit yëpp maa ngi leen sant bu baax di lay di leen ñaanal kenn ku ci nekk rek comme ni ma ko war faral di waxee mbiram seet nag Moussa ah du ma ne maa ko fi dàq parce que yàlla moo ñuy wax ci alquran ne wa fawqa kullu di ilmin alimin bépp xam-xam boo am rek yem foofu am na koo xam ne foofu la dalay jëm kaw te wax dëgg yàlla dañuy xormaal ñu ñuy seetaan di xormaal kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi mais mbiram seet li ma ci doon wax démb ak bërki démb laa ci waxaat yàlla dimbale na ma ma am may may seet seet boo xam ne wala may def li saxaar li saxaar boo xam ne képp ku ma bëgg xam say mbir incha allah bi hawlillahi wa quwwati bu ma la defalee ñoom ñaar yi bu ma la ci defalee benn di eh, di di dinaa xam lan moo gàllankoor say mbir parce que réew mi métti na mais nit ñi tamit ñu ngi fees dell ak jafe-jafe ñi ngi fees dell ak gàllankoor comme ni ma koy faral di waxee jafe li muy bari bari amna ño xamne sarax rek man man man na safara seen jafe-jafe mais problème bi moy duñ ko xam duñ xam seen sarax inshallah bi bi wa waxooti kep kuñ defal li saxara danañ la wax say sarax nga def ko mbaa nit defal lako ko ñu defal lako lu ci man de xew incha allah bu ñu ko defee rek say problème dina eh, yàlla dina ko saafara kenn mënu ci dara. macha allah mhm. euh, macha allah sëriñ Ahmed Khalifa Niass kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax mbokk yi nag mën naa ne sëriñ Ahmed Khalifa Niass nekk na koo xamante ne ku yàlla may la si wàllum seet surtout wàllum sarax am na sarax yoo xamante ne bu loo ko génn loowee incha allah euh, lépp loo xamante ne da nga ci doon sóobu incha allah di nga gis ndam ñu jàll suñu beneen question nag muy wàllum kaaraange kaaraange nag jamono ji mën naa ne moom la ñëpp war a wut muy ndaw muy mag sëñ bi ñu gis nga yor kaaraange bu doy waar kaaraange yoo xamante ne mën naa ne boo lim euh, euh, euh, bu si topp gën a garaaw muy kaaraange boo xamante ne aussi kaaraange bu doy waar la ñu bàyyi nga leeral mbokk internet. waa boo xoolee dama daan def heure bu may def waxtaan génnee sunguf yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ak cangat yeeg yooyu mais dama xool ne heure boo ko defee daanaka lu ci bëri ci sa jaamu yàlla dafay xaw a manqué tuuti parce que nit ñi xàmmee nañ xam nañ léegi. léegi moo waral na daanaka yooyu moom jot jotu génne bi duñ ko duñ ko am mais ne képp ku yàlla dogal sa soxla nar a fajoo ci ñun incha allah moo xam nga bëgg kaaraange moo xam nga bëgg wërsëg ak lu mu man di doon incha allah bi hawlillahi wa bu ñu déggantee incha allah loo bëgg rek danañ ci ñaan yàlla yàlla faj ko ak soxla ba nu mu mën di toll man nee naa la guddi yi ma toll gëm naa ne soxla du dugg sama nopp lu loolu dafa faju loolu li tax ma gëm ko mooy dama koo ñaan yàlla ba yàlla nag gëm naa ne yàlla nangul na ma ko incha allah moo tax nag képp kuñ jëflanteeg incha allah yàlla faj aajoom. macha allah euh, macha allah sëriñ Ahmed Khalifa Niass xam naa nag balaa ñoo continuer question yi dama gis fee ay ay kaamin ak ay ak ay sijaada sëñ bi lii ay sarax la wala lu mu demee. <laughs> waaw waaw du ma bëgg sax di ciy wax. parce que ñun moom lépp lu ñu am yàlla mi ñu koy jaarale ci barkeb alxuraan. waaye itam lépp lu ñu am yàlla mi ñu koy joxe ci barkeb sijaada. parce que bu ñëpp tëddee di nelaw. dañuy téye suñu kurus toog si suñu der di sabbal yàlla ci ay turam yu wuutee waaye daal Moussa euh, li ma bëgg a wax nga xam ko mooy yàlla dimbale nañu ñun ñu nekk nit yoo xam ne nitu faju aajo lañ ñi ay borom li damay tëju aussi damay liggéey ay turu yàlla loolu nag euh, toog bi du wax du bàkku toog bi du wax du sañ-sañ mais nag ak sant yàlla la na ciy sant yàlla parce que yàlla ngi may suturaal ci samay client képp ku ma ci jëflanteeg bi xawlilaay waqooti yàlla dana faj sa soxla ak soxla ba nu mu mën di toll loolu moo tax sax ba léegi daanaka looy dégg mooy bërëm résultat yi parce que ñii ñaan bëri na mais ñii def résultat moo néew ñii wax bëri na mais ñii def résultat moo néew mais nag ñun yàlla ak dimbale euh, amaguñ defet ci ñaan yàlla li tax defet bi mooy mosuñu séq ak ñaan yàlla ak doomu aadama yàlla gàcceel ñi ci képp kuñ jëflanteeg mhm. incha allah yàlla dina di eh, dina faj sa soxla mhm. aussi sa xool dana sedd ba yow sa bopp mhm. yaay dem oo sa mbokk wala indi sa mbokk loolu moo gën a neex ci ñaan waaw moo ci gën a neex mhm. ñu ngi sant yàlla baax a baax macha euh, allah sëriñ Ahmed Khalifa Niass euh, borom résultat yi euh, kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax bu ngeen déggee nag dàkkantal ba borom résultat yi yi nga xamante ne mi ngi koy def si ñaan yàlla ak si seet bi nga xamante ne mi ngi koy def di si am tawféex looloo waral boobee tur du yàlla suñu benn question nag mën naa ne ku mucc danga bëgg mos muy wàllu ubbeeku sëñ bi dégg naa yor nga ubbeeku bu doy waar. wax naa ko fi waxati ko fi nee naa la doomu aadama bu ñàkk wërsëg amut. Hmm. allahu latifu bi ibaadi yarsuqu man yasha mais nag wërsëg ci boppam dafa am dafa am ay kalkal yu koy kal dafa am ay gàllankoor yu koy gàllankoor waaye lum ci man di doon incha allah bi hawlillahi wa quwwati buñ ko xoolee ba am ci source yu leer incha allah buñ ci buñ duggee say mbir yàlla dana la jox wërsëg wërsëg boo xam ne day ñëw tawhan aw kërhan saahiran aw baatinan ngay nelaw say mbir di dox loolu am na fi kon problème bi mooy na nit ñi di xam kër yu baaxi te nañ di sox sonn seeni i soxla ak seeni i bëgg-bëgg incha allah bi awlilaay waxooti loolu bu amee incha allah yàlla dina faj soxla yi ñun nag dañoo ñëw di faj soxla dañoo ñëwuñ pour dañoo ñëw di faj soxla yi comme niñ ko daan defee comme niñ fi fekkaan suñuy maam yi fekk fi suñuy baay yi ah, yàlla dimbale ñu ni tamit ñu wax ne yegg nañ fañ yeggoon waaye ñi ngi sant yàlla waaw ñi ngi sant yàlla bu baax a baax macha allah macha allah euh, sëriñ Ahmed Khalifa Niass borom résultat yi euh, kaddu gi am na solo bu baax a baax a sëñ bi nag tey mën naa ne waxtu da ko xaw a tënk daal ay yite xamante ne mi ngi koy war a doxi ñu nag suñu beneen question rek nu mu gën a gaayoo rek muy wàllum papier sëñ bi dégg naa Modou Modi euh, ñi ngi sant yàlla bu baax a baax si buñ la xamee sëñ bi dégg naa papier da dimbali jàmm yàlla di leen ko ñaan ñu koy am waa xam nga mbiru ñaan yàlla wax dëgg yàlla ni ma koy faral di wax képp ku ko xamul wala manoo ko doo ci yàgg niñ ci ñàkk a yàggee nag mooy benn boo ci nekkee di tappale bis dana ñëw nga nekk ci ay jafe-jafe moo tax lu dul dëgg du yàgg moodu-moodu yi dañ leen a naxa naxa ci papier ba xamatuñ fuñ jëm waaye yow nga bokk nit benn réew bokk nit diine lislaam mu gis la nga wax mu yaakaar la ngir jàpp ne sa wax ji nga wax yow mii mi ngi ci yow am na ñoo xam ne jikkoy sondeel lañ yor de di leeral nit ñi di taal seen bopp kon bëri na ñoo xam ne jëflante na ak ñoom ci mbiru papier euh, tabaski bii ñu ngi war a tabaski seen i kër barkeb Cheikhou Tidiane gisuma lu ma jaral fen te xam naa li ci fen kon mbiram papier ak mbiram këyit lépp loo bëgg rek incha allah beelu laay bu ñu ko xoolee bam leer ñu ne bam leer ñu ne buñ ci duggee ak yooyu ñaanu ndaw la yooyu ñaan yoo xam ne la loolu loolu defe naa ne dimbale naa ci ay nit ba tàyyi comme dafa am dafa am ñaan yoo xam ne booy mbappat nga ci ne mooy ay examen ay noob yooyu moom mooy mbappat instant bi ne boo demee ba dugg ci grand combat mooy nga jàkkaarloog soxla yu mag yi ni ma koy faral di waxee man nag sama ñaan gi maayiwu ko saraxewu ma ko de waaw maayiwu ma ko saraxewu ko sama seet gi may seet mayu ma ko saraxewu ma ñaan gi may ñaan muy faju soxla aajo mayu ko saraxewu ma ko képp ku bëgg saf aajo faju nag buñ déggante yàlla faj sa aajo képp ku bëgg leneen demal uti ko feneen waaw macha allah euh, macha allah Serigne Ahmed Khalifa Niass borom résultat yi euh, kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax nu yàlla nag xam naa nag fi nga jeexalee sax foofu lañuy ñëw muy wàllum nopp bi nga tudd léegi sëñ bi dégg naa am nga nopp bu doy waar waaw nopp nopp xa nga ñu bari tey dañuy génn na nopp nopp te xamuñ nopp waaw sëriñ bu manta nopp manoo faj soxla waaw sëriñ bu manta boole ñaari doomu aadama man euh, defe naa ne nopp yàlla mi ma ciy suturaal suturaal goo xam ne képp ku ma ci jëflanteeg incha allah yàlla dina dina faj sa soxla muy ay nopp yu wuutee yoo xam ne mënuñoo toog fi bii ak bii détail détail mais daal nga bëgg ñu ànd moo xam jëkkër ak jabar moo xam nga nekk ci entreprise kenn bëggul la moo xam nga nekk ci kër kenn bëggul la moo xam ngay sëy kenn bëggul la mm. incha allah bi xawlilaahi wa quwwati buñ déggante mm. yàlla dina xotti xolu jaam ya mm. def la ci te kenn du ci mën dara incha allahu rabbi da ngeen nopp famille yu tasaaroo wala entreprise ah li ma la wax kan jeexal nay wax nga nekk ci kër kenn bëggu la wala kenn jubluwu la wala mënuñu déggoo incha allah buñ déggante eh, loolu dina saafarawu ñu jàll ci leneen mhm, incha allahu rabbi ñi na man nag sama wax moom incha allah wala taqulanna loolu la yàlla wax li shay'in inni dhalika xaddan illa an yasha allah inchaa allahu rabbi képp ku ma jëflanteeg sa soxla yàlla dina ko faj kenn mënuñ ci dara macha allah euh, sëriñ Ahmed Khalifa Niass gi am na solo bu baax a baax a baax daanaka nag waxtu bi jeex na ba pare dañuy ñëw nag euh, mën naa ne li nga xamante ne moom moo gën a ñor sénégalais ak tamit li nga xamante ne moo la gën a ñor li nga xam ne da nga see bëgg wax carrément muy wàllum actualité avenir Ousmane Sonko am na lu doy waar loo xamante ne nag gis nga ko war nga ko leeral mbokk internet yi Ousmane Sonko avenir am est-ce que euh, est-ce que gars yi duñ ko jàpp tëj ko ci kaso bi. waaw loolu moom defe naa ne bu amee loolu moom bu amee mooy réew mi tàkkaan na rek wax naa ko fi coow li bari mais heure buñ ko tegee loxo mooy réew mi da fi gis loo fi masta gis parce que nag bu dee dëgg rek moo neex yàlla ñuy wax dëgg ñëpp d'accord nañu Ousmane Sonko bu nekkee ci jàmm réew mi nekk ci jàmm bu nekkul ci jàmm ni réew mi nekk ci fitna xam nga am na ci loo xam ne. Euh, ñàkk koo wax day mel ni boobaa yow da nga ñàkk gëm yàlla wala da ngay fàtte yàlla mooy def lu ko neex ci jàmbi faalu lima yurit nañ gëm ne nañ nangu ne Ousmane Sonko may gii mu am ba yàlla xotti xolu doomu aadama def ko ci ñii mu gënal leen seeni doom ñii mu gënal leen seen i njaboot loolu may ak yàlla la faalu lima yuritu yàlla la man nag dépassé naa fu may waxee lu neex doomu aadama yàlla laa gën a ragal ci doomu aadama waaye nag bu ma gisee xam ne lii ak may la dinaa parce que man sama xol bi daraay kañaan nekku ci ku sa xol kañaan mënoo faj soxla sëriñ si nag foofu lay rawante ak doomu aadama yi kon Ousmane Sonko daal lii lii yoon mooy naka ñépp ñaanal mu nekk ci jàmm. ci jàmm de man nag nu ne man sàmba Samba àndumaag dëgg laa ànd sama kuris gii sama ismu laay lax sam yi laa ànd waaye nag ah buñ ko laalee réew dana yëngu de. lii dossier bi nga xam ne ab dossier caaxaan la buñ buñ ko yëngalaatee yooxu dana jóg fuñ ko foogeewut waaw sëñ doy na waar ah doy na waar de sëñ Ahmed Khalifa Niass xam naa nag mën naa ne euh, dialogue bi nga xamante ne euh, président Macky Sall woote na ko ñu war si waxtaan ay mbir yu am solo surtout mbiru troisième mandat bi sëñ bi boo déggee troisième mandat lan la lay jox. troisième mandat moom jarut bu dee loolu rek moo tax ñuy dialogue jarut dialogue parce que defe naa ne askan wi wala réew mi. duñ ko seetaan mu jàll. defe naa ne bu dee loolu rek dialogue bi daal man li ma jàpp mooy liñ teg seen bët te gis ne mooy maye jàmm ñi nekk ci loolu. man actuellement loolu laa jàpp ne moom moo jaro jal moo moo jaro dialogue dialogue bi mooy ki nga xam ne yaa ngi koy teg ay finna te finna yi ci yi nga koy teg finna yi yàlla àndut ci nga bokk mu nekk ci jàmm réew mi nekk ci jàmm mbir yëpp di dox nam daan doxee waaye génn dem ci réewi jàmbur yi pour ñu am jàmm ak dox jàmm te sa yow réew sa réew a ngi ne xàcc ak problème mi ngi fees dell ak ay problème nga ne ko fi ñukk réew mi ah ah day nu koy nu ko ñëpp gisee rek maa xam ne Sénégal instant réew mu ko problème am na ah ñaata ñaata nit la ñoo ñaata nit a ne ci prison yi ñaata nit ñàpp ñàkk seen bakkan ci ay dossiers yoo xam ne da ree ba tas kon nañ booy bay sa weyu tànk ngay njëkkee doog a continuer waaw. macha allah euh, macha allah sëriñ Ahmed Khalifa Niass kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax xam naa rek euh, nag lu ko comme ni nga koy waxee rek lu duuf si nag bi xëy si cin bi euh, da koy daal di bàyyi mu tàggoog suñu mbokk internet yi ngay seetaan ak tamit ñu bàyyi ko mu lancer benn message pour ndaw ñi. waaw lancer bi mooy maa ngi maa ngi ñaanal ñëpp yàlla defal leen wërsëg parce que defe naa ne am am lu baax la ci doomu aadama surtout jamono ji ñu toll. ndaw ñi bëgg nañ bëgg nañ a teral seen way juri waaye seen loxo jotu seen i ginnaaw ñi ngi ñaan ci yàlla di ñaan ci barkeb yonent bi ndaw ñi yal na leen yàlla jox wërsëg yal na leen yàlla ah secret yi joxe wërsëg na am na fi am na fi duñ toog fii di koy maye woon man man nag man na du ma maye secret loo may gis nii sañ bii duma ma maye secret de man sama sama sama sama kii bi dama sama kii dama cee fiir de man du ma maye secret de waaw mais secret yi nga xam ne mi ngi maye wërsëg mi secret yi nga xam ne képp ku ko am raw sag maas saahiran aw baatinan mi ngi fi waaye nag incha allah bi awlilaay wa quwati képp ku pare pour dimbale say wayjur boo ñëwee danañ la ci jàppale ba yàlla ba ba sa wërsëg di ñëw comme na mu waree réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm Moussa na yàlla na fi yàlla def jàmm man nag samay wax samay wax du wax xale du waxu kii parce que euh, damay damay gis yàlla daf may wan ñaareel yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi tabaski gii di ñëw képp ku jaaxle ba te amagoo xar yan na la yàlla jox képp ku jaaxle te amagoo xar yan na la yàlla jox kenn ku ci nekk soxla ba nga fas sa xol yàlla mooy ki ka mën a faj yan ko yàlla faj barke yonti barke Cheikh Tidiane maa ngi gërëm ñi may safoo di may ñaanloo yàlla di may jox seen i dërëm fu ñu man di nekk yàlla mi mën a faj aju yan na yàlla faj seen te incha allah bi xawlilaa wa quwwati yàlla dana faj seen aju ñoom ñëpp yow itam maa ngi lay ñaan yàlla defal la jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.